non du leer. yow da ngaa toog si fil bi. voilà Barthélémy Dias moom moo nekkaloon Ousmane. waaw taxaw ni si digg voilà. yàlla dëgg la dama ñëw fekk si si ma yaay mooy maire Ndeye Diaw nga tàccul ma ko bu baax a baax. ñu ngi may xaar Kébémer. Ousmane baax na. ñu ngi xaar Thiès meeting. lii daal moom suñu fi defee déclaration bi mbokk yi. Ousmane ñu nekk ñu def tamit mosal waa Kébémer dem mosal waa Ngaye mosal waa waa honorable député président conseil départemental xam na fu may waxee. waaw moom xam na bu baax fu may waxee xam na luy campagne. campagne daal dangay ngay mosal gaay da ngay mosal gaay rek. te fii moom incha allah su ci yàlla su di Louga moom ndam rek incha allah ndam rek ndam rek. honorable député Pape Djibril Fall la ko yor mu sant ci ñaari baat du noonu ensuite ñu jox candidat wax ensuite ñafal ñafal du noonu <laughs> salaamaaleykum Louga salaamaaleykum waa Louga waa sàmm ñoo ñëw ngir euh, saafonte ak yéen ngir nuyu leen waaye ngir fàttali leen li ngeen ba noppi mooy li ngeen war a def le 17 novembre très tôt le matin. di leen gërëm bu baax nag mobilisation bi ngeen def mobilisation exceptionnelle. jaar nañ fu bëri depuis campagne bi démarré am nañ satisfaction fu bëri. depuis campagne bi démarré parce que satisfaction parce que constat général moo am ci réew mooy li xew 24 mars dañ koy corriger le 17 novembre waaye li ñu fekk Louga moom macha allah am na solo lool lool jeunesse bi li ngeen wax dégg nañ ko fàttali ngeen ñu loo xamante xam nañ ko ba pare mooy le chômage massif jigéen ñi li ngeen li ñu gis ngeen wan ñu ko fàttali ñu ko mooy li nga xamante ne xamoon nañ ba tax ñu jóg dugg ci élection yi bëgg a dem assemblée nationale muy coono bi ngeen nekkee donc à l' assemblée nationale sàmm sa kàddu sa battra pour l' autonomisation des femmes sàmm sa kàddu dina xeex ngir transhumance jeex ci réew mi te loolu waa Louga yéen lay wax ngeen fajal ko seen bopp am na loo xamante nii du ngor am na loo xamante ni du diine am na loo xamante ni kenn xamut lan la mooy fu tooy rek am na loo xam damay barkeelu rek li ci des ma jox ko ñeneen ñi naataango yi ma àndal waaye dafa am loo xamante ni da ko gis tey war ko mottali novembre ma à l'intérêt général. Une dame qui a tout donné à l'action publique, à l'action politique. Le 17 novembre, yóbbu Assemblée nationale. Le président de du conseil départemental xam ngeen bëgg Lougaam nationale le candidat du PUR <laughs> Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbodj du PDS day dem assemblée li ma bëgg a wax foofu xam ngeen ko mooy li ma bëgg a wax xam ngeen ko surtout ndaw ñi yéen lay waxal et je parle sous le contrôle de nos aînés une élection n'est jamais gagnée d'avance continuez le travail faites de la massification dugg leen ci kër yi ana bulletin bi nekk ci spécimen bi kan moo nekk ci spécimen bi le 17 novembre le choix qui sera fait c'est le choix le plus simple honorable Cheikh Bara honorable Sylla honorable Mamadou Niang yóbbu leen assemblée nationale waa Louga surtout surtout surtout les Lougatois de la diaspora je vous lance un message depuis Louga les Lougatois de la diaspora yaakaar bi ngeen amoon le vingt 24 mars gis ngeen tey jii sept mois déggu leen ñu tudd Louga dégu leen ñu mottalee waxtaan Louga dégu leen aucun programme de développement pour Louga il faut les sanctionner le 17 novembre La jeunesse, c'est jeune qui vous parle. C'est jeune très conscient qui vous parle. jeune très conscient des enjeux de l'heure qui vous parle. C'est un jeune très conscient des enjeux du moment qui un jeune qui a une totale conscience de l'engagement citoyen et de l'engagement communautaire et de l'engagement politique. C'est un jeune qui vous demande solennellement de sanctionner le pouvoir le 17 novembre. Assalamu alaikum wa dañ leen bàyyi ñu wax dañ leen bàyyi ñu wax. non il faut que. yomb yomb yomb yomb yomb voilà Cheikh Tidiane moom mooy waa ji wax ni Cheikh Tidiane ñooy demandé moom mooy te moo jëlee tête de liste euh, parti bi. day waay ma baal leen. ma leen baal. soo leen baal. asalaamaaleykum waa Louga maa ngi leen di nuyu di kontaan lool ci ñëw fi tey dañuy wax ni damay dégg ñuy wax tout ñu ni Louga dañu man bés waaye tey confirmé ngeen ko mën nañ ne Louga day li mu waroon def def na ko accompagner ngeen candidat yi nga xam ne nii ñoom lañu ñu fal aussi bien sur les listes nationales que au niveau du département waaye nag xam leen benn mbir gis nga man dama gëm ni ñoom danañ dem assemblée nationale incha allah waaye yéen leen war a yéen ci seen bopp yéen a leen war a mobilisation bi am na solo lool lool lool lool waaye nag li tubaab di wax le c'est c'est le début du commencement donc le travail ne fait que commencer boo fi jógee dugg leen këroo kër même koo yaakaar ni du leen votel dem leen seeti ko wax ak moom parce que dafa am lu déclenché wu ba pare li déclenché ba pare nag yéen a koy accompagner yéen a war jël seen responsabilité dugg kër bu nekk wax ak nit ñi le dimanche prochain ñu voté sàmm sa kàddu li ma gis te mu wóor moo di Louga sàmm sa kàddu téye na ko te bi mu ko téye daf ko téye ak ñaari loxo yéen nag yéenay def tout ba dimanche teye boobu ñu confirmer ko sàmm sa kàddu nag ñii ñu tànn duma leen leen présenté muy honorable Likaj di honorable Mamadou le président du conseil départemental ak euh, nu mu ak Fallou yéen ba leen gën a xam li tax ñu tànn leen yéen xam ngeen ko ci taxawaay ci bëgg seen dëkk ci gëm seen dëkk toppatoo seen dëkk am jikko yu rafet donc ñu mel noonu la Sénégal soxla ci député donc yéen bu ñu leen tànnalee ñii ñu leen tànnal yéen leen war a accompagner ba ñu dem assemblée taxawu leen fa donc li tubaab di wax la balle dans votre camp il vous appartient dimanche de matérialiser cette volonté pour que ñu yóbbu leen te bu ñu demee assemblée nationale bari na injustice bu am ci dëkk bi dinañ ko dakkal ñu ngi wax homosexualité danañu jël engagement ne danañu taxaw ba loolu jóge fi def kay projet de loi amnistie bi nga xam ne nii voté nañ ko danañ ko xoolaat ba nga xam ne nii ñii nga xam ne nii deewoon nañ ci jafe-jafe yi am ci at yi ñu génn ñu rétablir leen ba nga xam ne nii ñi def naka su dul noonu ñu jugé leen am leen ne ñi ngeen di yóbbu assemblée danañu am taxawaay boo xam ne nii askan bi rek moo leen fay bàyyi. te fi may daanele moo di ah Louga de dëkku diine la gis nañu ñi nga xam ne nii ñenn ñi ni ñu ñàkk ormale diine te ñu ngi leen di wax ne leen li am solo te mu am solo moo di Sénégal mënul dem sans diine. donc diine yi nitu diine yi ndongo yeeg ñëpp dañ leen a war a ormal ci fànn bu nekk muy diine catholique muy muy ci euh, religion musulmane dañ leen a war a ormal sàmm leen jox leen seen wàccuwaay ormal leen donc taxawaay boobu nag bu ñu demee assemblée nationale danañu ko am ngeen bàyyi ci xel ba yóbbul ñu ñii nga xam ne nii ñoom la ñu jiital ngeen yóbbu leen assemblée nationale donc la balle est encore une fois de plus dans votre camp et vous appartient dimanche à 13h de faire le nécessaire de 13h jusqu'à 18h ngeen mën a surveiller parce que loolu la sécurisation est extrêmement importante liggéey liggéey bi dem ba le jour sécuriser wu leen dafay mel ni li ngeen def yëpp dafay tomber à l'eau comme on dit donc def leen le travail à 13 heures prenez votre responsabilité ngeen sécuriser ñi war a toog ci suufu garab yi naan seen ataaya naan seen ataaya ñi war a toog ci kër yi naan seen njar naan seen njar te préparer victoire bi à 18 heures incha allah jërëjëf